même ci parrainage yi jaay doole bi ñu jaay doole nii am nay candidat tey yoo xam ne bukki bukki bi màtt na leen mais ba may màtt seen i moroom ñoom ñu nekkoon ci Macky Sall ñoom ñoo ko doon layal parce que aujourd'hui man dama gëm ni Mimi dañ koo jaay doole ba nekkul candidat loolu laa gëm parce que Mimi man gëm naa ne matal na ay parrainage dañ ko jaay doole loolu laa gëm Mimi Touré matal na ay parrainage dañ ko jaay doole mais Mimi bi ñuy jaay doole nit ñi en 2019 ci parrainage moom moo taxawoon di wax ne conseil constitutionnel am na droit def li mu def parce que conseil constitutionnel képp ku mu éliminer dañ laa war a éliminer moom moom loolu moo ko rattrapé tey parce que bukki bi màttoon nit ñi 2019 moo ko màtt moom mii tey moom Mimi Touré mais man gëm naa ne dafa war a nekk candidat parce que dañ ko jaay doole loolu laa gëm parce que man dara mënut a tax may défendre lu ma gëmul Mimi Touré dafa war a nekk candidat. dañ ko jaay doole loolu laa gëm waaye moom it 2019 bi Macky Sall di jël yat wi di duma nit ñi ci mbirum parenage ji jaay doole fexe ba réduire candidat yi mu nekk juróom cote booba Mimi Touré mii tey moo doon taxaw ci plateau yi def ay conférence de presse di ko layal di wax ni parenage bi dara nekku ci que candidat bu conseil constitutionnel éliminé da ngaa war a dem toogi ne parce que ça veut dire mataloo kon tey loolu moo dal ci kawam kon xam naa ne loolu bu toogee ba wét dina xam ne juumoon na en 2019 wante nag li ma bëgg a wax nit ñi mooy ak lu mën a am élection yi moom kenn ko dàq loolu pour mu leer ci bopp sénégalais yi pare wuñu ñun sénégalais yi te boo seetloo ñu ëpp sénégalais yi koo romb ci mbedd mi loolu la lay wax daas fanaanal taqalikoo ak tappalekat yi yore sunum réew depuis 1960 te tey jii ñooñu ñoom ñii fi nekk lañ doon def depuis 1960 ak gouvernement fii fii fi jaar yëpp ci tappale ki yàqate suñu alal ak wuruj ak ànd ak ay tubaab ñuy tibb suñuy euh, ressource ci loolu lañ nekk nekkuñ ci leneen kon nag li nga xam ne moom moo am mooy ñun ñëpp nañ àndandoo waajal élection yi candidat yi ma gis tey ñu def conférence de presse wax ni dañoo bëgg a bokk ci élection yi am ngeen droit bokk ci élection yi ndaxte yéen ñëpp dañoo saboté seen i parrainage loolu gëm naa ko man gëm naa ne dañoo waroon a dañoo saboté seen i parrainage da ngeen a war a bokk ci élection yi comme ni chef de l' opposition Ousmane Sonko war a bokkee ci élection yi tam jaay ko doole loolu laa gëm yéen ñëpp dañ leen a jaay doole amul benn parrainage bu ci jaar jaar yoon yéen ñëpp dañ leen a jaay doole dem jël ay tappalekat def leen ay candidat parce que Macky Sall candidat mi ñii la Amadou Julde Ba Aly njaay Ndiaye Boun Abdallah Dionne Mame Boye Diao Khalifa Sall Anta Babacar Ngom Daouda Ndiaye Rose Wardini ñii ay candidats yi Macky bu leen ci am benn sikki sàkk ci li ma wax nii ay candidats yi Macky lañ li leen mën a firndeel ne ay candidats yi Macky Sall lañ ku ngeen ci jël ci ruq ne ko bu deuxième tour amee koy voteel du voteel candidat bi Ousmane Sonko tànn te ñëpp xam nañ candidat Ousmane Sonko bu gañewul premier tour day dem deuxième tour loolu mooy dëgg ñun li nu gëm mooy su sénégalais yi voté li nu wone ak li nu fësal ak cofeel gi nu am ci Ousmane Sonko te gëm ne Ousmane Sonko élection yii candidat bi mu tànn bu gañee ci guddi gi la nit ñi dem dem jubile dem jëli ko fa mu nekk ca prison ba ci jaay doole kon ku bëgg la vingt cinq février deux mille vingt quatre Ousmane Sonko dem fanaani këram le vingt cinq février deux mille vingt quatre da ngeen di voter massivement yéen ñëpp ngeen génn solo ba rafet ànd àndandoo dem voter pour Ousmane pour ki ki nga xam moom la Ousmane Sonko tànn parce que Ousmane Sonko ki mu tànn mook Ousmane Sonko benn lañu kon nag man jàpp naa ne dès le premier tour. Bassirou Diomaye fay mun na gagné élection yi man loolu laa gëm Bassirou Diomaye fay mun na gañe élection yi dès la premier tour mais man gëm naa ne bu ñu dee dem deuxième tour bu élection yi jaaree yoon candidat yii ma leen fi limal te ñuy candidat yi Macky Sall ak ni leen sénégalais yi meree meree ko Macky sàll ak système bi ak ni leen jaayee doole duma leen tëj seeni doom fexe ba seeni doom gàddaay parce que sénégalais yi bari dañoo gàddaay génn réew mi ndax tiit defan dañ leen dañ dañ leen tëj ci kaso ay sénégalais di manifester defuñu dara ñu tiire leen ay bal ñu dee ñu rey donc sénégalais yi bëree bëree bëree bëri sénégalais yi junniy junniy sénégalais nekk ci kaso yi sénégalais yi bari daw génn réew mi ñu jaay doole sénégalais yi jël alalu sénégalais yi dem def jox ko ay tubaab ñu leen ñoom ñu def ñu randal ko ñoom seen bopp waaw léegi lii sénégalais yi bëgg ko fee jëlee. man jàpp naa ne bu ñu ko fi bëggee jëlee duñ fal candidat yi Macky Sall yi Macky Sall bari la nay candidat waaye candidaam yii ku ci ku ci mën a am doole bu mën a dem deuxième tour laa fi gisul man ñoom ñii ñëpp koo ci jël pour mu man fee am ay voix yu tax mu dem deuxième tour sénégalais yi rang ci bureau de vote yi di leen votel ah loolu maa ngi néeg ba mu jot ba ma gis sénégalais yi def loolu ma dog koy gëm gëm naa ne man li sénégalais yi di wax bu fekkente ne noonu lañ voté mere gi ñu mere Macky Sall ak régime ak jéppi gi ñu jéppi Macky Sall ak régime ak jaay doole bi mu leen fi jaay doole ak ñombe yi ñu fi def ñoom seen régime depuis 2012 jàpp naa ne sénégalais yi daan voté massivement contre le régime du président Macky Sall te Ousmane Sonko bu élection yi jàllee ñépp dinañ gis ni Ousmane Sonko est un génie politique li mu lal. Macky Sall mënu koo xam ba koy laal li loolu waxoon naa leen ko fi nee woon naa leen Ousmane Sonko li mu lal Macky Sall mënu koo xam ba koy lal Ousmane Sonko est un politique gis nga li ñuy doon teg yépp ak coow yu doon def yépp liñ ci doon waajal mooy fexe ba Ousmane Sonko am candidat ci élection yi pour gagner parce que la projet Pastef dépasse Ousmane Sonko Ousmane Sonko du turam moo ko intéressé pour ay élection Ousmane Sonko li ko intéressé moo Pastef gagner doxal programme bi nga xam si moom la bëgg a teg pour joyanti réew mi ci boor bu mën a buñ mën a féete nga xam ne nërmeelal nañu réewum Sénégal Ousmane Sonko loolu la bëgg te Ousmane Sonko loolu jiitalu ci jëmmam ci Ousmane Sonko li mu ci jiital mooy na projet bi gouverner la Sénégal à partir de deux mille vingt cinq kon loolu moo tax ñoom mun ñu woon a gis parce que ñoom comme ni ñuy xalaate mooy Ousmane Sonko daa am ay intérêt yu muy sauvegarder au contraire Ousmane Sonko moom li muy xeex nii moom moo ciy yàqu parce que Ousmane Sonko li muy xeex moom jëmalewu ko këram bu doon poosam rek la kon Ousmane Sonko du génn DGID kon sax du teg parti politique am day toog foofu rek di jël euh, ay ay ay millions di di di def ci compte bancaire am muy gën a doon muy góotaandaat moom ak ak njabootam mais Ousmane Sonko loolu intéressé wu ko mu ñëw ni damay bàyyi avantage yépp taxaw xeexal sama réew kon réew mi moo ñor Ousmane Sonko kon ñoom lajj nañ daanu nañ dañoo defoon ne Ousmane Sonko nguur a ko intéressé. alors Ousmane Sonko nguur intéressé wu ko Ousmane Sonko li ko intéressé mooy taxaw xeexal réew mi pour que jaay doole bi am ci réew mi jeex pour que réew mi nekkaat réew kon nag actuellement li des mooy dem jëli ndam ji dem jëli ndam li nag mooy waajal ko mooy li ma gis fan yi dëkk yépp di def lever de fonds na levée de fonds yi takkarnaase village yi dajaloo leen fukki junni sax bonul ngeen dajale ko daal di dugal ci keesu euh, campagne ki nga xam ne moom la Ousmane Sonko di tànn pour mu jël réew mi incha allah le vingt cinq février deux mille vingt quatre diaspora bi li ngeen commencé baax na nañ ko nañ ko lawal ci dëkk yépp fii ci Afrique également dëkk yépp nañ def seen levée de fonds financé leen campagne candidat wu Ousmane Sonko. fal ko le vingt cinq février deux mille vingt quatre mu teg programme mu euh, bi nga xam si moom la ñëpp bëgg ñu teg ko mooy gis-gis bi nga xam si moom la sama ko jaayante teg Sénégalais yi te Sénégalais yi gis ni lii kat buñ ko doxalee réew mi jëm ca kanam kon nag li am solo mooy euh, situation bi metti na ci benn côté parce que jaay doole am na démontrer naa leen. lii wane ni conseil constitutionnel li mu def teguwul ci dëgg danu jaay doole Ousmane Sonko ba tere koo nekk candidat jàpp nag ni Ousmane Sonko bu ñu ko defee loolu xëy na mën nañoo gañe parce que Ousmane Sonko moo leen tere moo moo leen tere ne la xam nañ Ousmane Sonko ragal nañ ko ragal goo xam ne bëgguñu mu nekk candidat loolu leer naññ la waaye li ñu xamul mooy mbir mi dafa dépassé ay personnes. dafa dépassé ay personnes parce que ki ko jiite muy Ousmane Sonko boppam tax koo jóg loolu mooy différence bi loolu mooy différence bi parce que bu ngeen xoolee en deux mille dix-neuf am na ab parti politique bu tudd PDS bi ñu ko fi xañee mu nekk candidat ak leader am la ñu def mooy dañoo boycotté élection yi parce que ñoom dañoo jàpp ni benn nit. moo war a ñëw di nekk candidat bu ngeen fàttali ko Ablaye Wade moom ci boppam sax boycotté na fi élection bi muy xëccoo ak du juf bi mu demee ba mu bëgg a teg doomam mu gis ne xañ nañ doomam mu nekk candidat dafa boycotté élection yi bëggul wut beneen candidat parce que ñoom culte du moi la ñuy def ci politique maanaam seen bopp la ñuy gis ci politique Ousmane Sonko nag moo tax ñoom ñu yaakaaroon ne moom xeetu politiciens yooyu ñoo yem bu ñu ko teree nekk candidat. Pastef du am candidat mais Ousmane Sonko dépassé na loolu Ousmane Sonko moo mag loolu parce que Ousmane Sonko mënta jaay sénégalais yi projet Pastef ba pare Pastef di dem ci ab élection yoo leer na ñëpp ne bu élection yi jaaree yoon Pastef mooy gagné muy xool boppam ba tax Pastef du am candidat kon Ousmane moo tax boobu waajaloon na lépp te tey ñëwagul parce que biñ ba xam ni jaral na leen taal dëkk bi mais Ousmane Sonko du nekk candidat booba lañ xam ni kon waajal maintenant li ñu koy rox dañ leen a juuy ñoom dañoo yàgg focus ci Ousmane Sonko alors que boobu Ousmane Sonko mi ngi focus ci projet bi tey nag loolu ñëw na kon Ousmane Sonko jox na une chance aux Sénégalais pour que projet boobu nga xam moom lañ bëgg usman Sonko doxal ko mais projet bi gagné te projet bi gagné mooy candidat Ousmane Sonko gagné bu candidat Ousmane Sonko gagné mais benn la rek ma Ousmane Sonko gagné parce que Ousmane Sonko bu gagné woon it ñi waroon a àndal. doxal projet bi ñooñ ñooñ ñoo nar a doxal tey projet bi euh, ak moom parce que Ousmane Sonko bu projet bi gañee ci katton yàlla day génn ci kaso bi ànd ak ki nga xam si moom la tànn ak ñi am si ñoo nekk ci projet bi ñu teg ko ci compétence teg ko ci xam-xam teg ko ci dëgg def réforme yi réew mi tegwaat ci yoon ñun Sénégal euh, naat ñëpp ñi nga xam ñi ngi bitim réew sonn nga xam ne lépp lu ñu liggéey seen njaboot lañ koy yónnee fii ci Sénégal di gis ni bu ñu ko yónnee du jariñ dara ndaxte réew mi dafa dellu ginnaaw ñoom ñëpp bu boobaa daan mën a ñibbisi investir fii ci Sénégal ñoom ñëpp daan mën a ñibbi si liggéey fii ci Sénégal parce que Sénégal yàlla wàccoon na ak lépp mu ngi fii ci réew ñoo am une diaspora de qualité di dugal lu ëpp junni milliards par at ci sunum réew nga xam ne bu fi dugg duggaloon musiba am ci réew mi waaye tey la réew mi gën a dellu ginnaaw ndaxte lu fi mën a duggit ay euh, tappalekat jël randal xaalis bi ba kenn du gis fan nañ ko investir loolu nag am nañ tey occasion pour tàqale ko ak moom li may jàngat nag ci beneen euh, élimination bi mooy élimination Karim Wade parce que ci list provisoire bi amoon na ñaar fukki candidat ak benn alors que ci fin bi ñaar fukki candidat lañ mujj teg kon Karim mu moo ñëwaatu le fait que ñu éliminer Karim Wade nag c'est une bonne nouvelle pour la démocratie sénégalaise parce que Karim Wade kon nu ma ko yàgg a waxee bu ñu ko bàyyi woon mu ñëw fii di def di nekk euh, candidat te yomb trop et bu ngeen xoolee ni France dernière minute ñëwee di jéem a sauver Karim Wade di signé loo xam ni euh, wax dëgg yàlla ay 16 janvier ngay ñëw naan. Euh,